salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 dañu koy doree ak équipe nationale bu Sénégal U20 bi tey jii la ñu war a jouer seen match bu njëkk ci li nga xam ne moo aju ci coupe du monde bi nga xam ne ñoo ngi koy amal coupe du monde U20 bi xam ne tàmbali nañ ko ki démb poule A ak poule B yëpp joué nañu suñu gaynde yi nag war a jouer tey jii ñoom nag ñu war a seen diggante ak ñii di waa Japon match boobu de nag mu ngi xew bu juróom-ñeenti waxtu ci guddi jotee maanaam 21 heures ci la Sénégal war a joué digganteem ak ñii di waa Japon bu ñu xoolee programme tey bi nii la demee Nigeria dina joué bu 18h jotee digganteemam ak ñi nga xam ne ñoo di waa Dominican Republic Israël dina joué digganteem ak Colombie moom itam bu 18h jotee Sénégal dina joué ak Japon boobu nekk bu 21h jotee waaye Italie war a joué ak Brésil moom it bu 21h jotee kon match tey yi moom mooy dàq foofu match démb bi tey ay match yu neex la ñu gis. loolu mooy programme bi voilà kon ñu leen ko waxee suñu gaynde ñooy joué vingt seen diggante ak ñii di waa Japon. Cristiano Ronaldo ca Bundesliga ba lu mën a nekk la loolu de xibaar la boo xam ne dafa wër kayiti xibaar yi diggante démb ak tey benn millionnaire wala boroom xaalis bu baree bari moo dal di jóg daal. pare ngir dégg maam génne ay koppar voilà su fekkante na yar na bëgg na kii di Cristiano Ronaldo moom pare na ngir daal di dégg nga teg koppar yooyu le ci taabal ji su ko defee mu daal di koy signé pour Bayern waaye itam daal di fay li nga xamante ne moo aju ci salaire am voilà benn entrepreneur la ne nañu bu bëri xaalis ñu koy wax Marco Schoen moom nag daal dinay bind sax email ki nga xamante ne mooy Oliver Kahn bi nga xam ne mooy directeur bu ñii di waa mu Munich su ko defee mu dal di dégg indi ay tontu ci loolu bu fekkente ne ñoom loolu ñor na leen moom loolu dana ci taxaw ndax am na koppar yi te pare na ngir def ko su ko defee mu indi Cristiano Ronaldo foofu la ca Allemagne ca Bundesliga bi ak équipe boobu la de Bayern Munich léegi daal moom loolu mooy li nga xam ne mooy proposal am mu ngi xaar li nga xamante ne mooy respond bu ñii di waa Bayern ci maanaam bu fekkente ne ñoom loolu ñor na leen rek moom moo ngi leen ciy déglu moom loolu dina ko dal di taxawee. Manchester City dañoo bëgg dugalante ak ñi di waa Bayern Munich ci ki nga xamante ni mooy Joshua Kimmich Kimmich bi nga xam ne dégg ngeen fan yi rek ñuy wax ak demam wala bokk ak dégg nga maam génnam foofu la ca Bayern ci ba ñuy wax ne sax amaana bu fay jógee Barça lay dem Man City nag ñoom dugal nañ ci seen xorom ndax nee ñu dañoo bëgg kii di Kimmich ci kaw loolu kii di Pep Guardiola bëggatul gis ki nga xamante mooy Joao Cancelo foofu la ca Manchester City ndax moom kat dafa jàpp ne ki nga xamante ne mooy Cancelo dafa perturber li nga xamante ne mooy ab groupam moo tax moom yittewul ko moom daal bu sañoon kii di Cancelo du ñëwaat léegi ci kaw loolu bu ne bu fekkante ne li koy di xibaar bind mooy bu fekkante ne ñi waa Bayern na ñoom kii di Cancelo ñor na leen wala bëgg nañu ko su boobaa ñoom mën nañu def business ñu dugalante voilà ñu jox leen ki nga xamante ne mooy Joshua Kimmich ñoom Man City ñoom yitte woon nañu ko loolu mooy li xam ne kii xibaar bii di Miro dal dina koy indi ki nga xamante nak nag uh, moom la ñuy wax de julian nagelsman bi nga xamante ni moom bayar dañ ko daxoon ci jamono te bàyyi leen ay jafe-jafe xam ngeen ne bayar démb rek dañ ko door di times ñëw na ci ay mbiram di times li mu xam le mooy nagelsman kat fi mu ne nii moom favori ba léegi ci ñii di waa tottenham xam nga tottenham démb dañ ko door ba léegi ñu ngi ci mbirum kii di Nagelsmann Nagelsmann nag lenn moo gàllankooroon ab ab dégg nga maam signé foofu la ca Tottenham bokk na ci li nga xamante ne mooy ñu dal di indi directeur sportif bu bees moom loolu la wax nee na foog ñu indi euh, ab directeur sportif bu bees loolu daal su amee moom nangu na signé ak ñi di waa Tottenham loolu daal mooy condition yi te loolu nag mooy li nga xam ne Tottenham nangoo guñu ko woon waaye xañ na foofu la ñuy mujj xañ na fa la ñuy ndax ba fii ñuy waxee kii di Nagelsmann pareegul ngir signé bu fekkente ne nangu luñ ko condition am yooyu la mooy ñu indi beneen directeur sportif loolu daal bu amee moom dina signé Nagelsmann nag euh, gone la de waaye entraîneur bu xarañ la ku mën li muy def ndax kat bu ngeen di bàyyi xel dafa def ay jaloore foofu la ca Red Bull Leipzig balaa mooy ñëw foofu la ca na te gis ngeen Bayern bi mu fa ñëwee jaloore yi nga xam ne jot na ko faa def gis nañu ne sax de voilà bi mu fa jógee ak léegi mbiri doxewul ni mu waroon doxee kon tot naam amaana bu ñu ko amoon jox ko li nga xamante ne moom la soxla du ñàkk mu am coppite yi moo fa indi ba ñu war leen mën a dégg ci li nga xamante ni mooy compétition yi gën a mag wala sax ñu xëccoo ab titre loolu it mën na nekk ñu am kii di Nagelsmann voilà kon loolu daal mooy gàllankoor yi mooy ñu indil ko directeur sportif bu bees comme ni ko kayit xibaar bi di Times dal di indee. Barcelone moom démb dafa jël defet ci Real Sociedad Real Sociedad daal moo ko fekk dëkkam daal di koy door 2 buts à ñu fàttali leen nag li nga xamante ne mooy La Liga moom jeex na Barça gagné na ko waaye daal fi mu ne nii na ay poñam dinañu wàññeeku. gars yi dinañu ko gën a sës bu fekkante ne am nañu ndam équipe boo mel ne ay Real ay Atlético nga xamante ni Barça lim leen jiite woon dafa xawoon bari voilà défaite boobu nag dina wàññi ay poñam Lewandowski nag moo dugal but bi nga xam ne ñoom Barça am nañu ko booba sax match bi daanaka jeex na Miguel Merino ak Alexander Charlotte ñoo dugal but yi pour ñi di waa Real Sociedad Cheikhou Kouyaté ak ki nga xamante ne mooy Moussa Niakhaté waxoon nañ leen ko démb ñoom seen équipe bi dafay des ci English Premier League bi Nottingham Forest nag di équipe boo xam ne démb dañoo meloon ni ku gagné coupe ndax kat li ko waral mooy ñoom li nga xamante ni moo ëpp ci saison bi dañ ko doon joué ak njàqare te ñu def xaalis bu bëree bëri ci transfert yi maanaam lu ëpp ñaar fukki joueur wala lu mat ñaar fukki joueur ñoom waa dégg nga maam Nottingham Forest signé nañu ko saison ren bi loolu nag nekk loo xam ne xëj na mosuñu ko gis mën nañu wax daanaka daal beneen équipe la ñu amee dañoo génne xaalis génne xaalis signé nañu façon joueur bu ne signé nañ ko ci njëlbeen bi ñu yéegee rek maanaam bi ñu monté jour yu bari la ñu signé ñu dem ba ci janvier bi gisuñu lu ñu xam ñu commencé waat di signé rek lu mat ñaar fukki joueurs laa la wax ne ñoom signé nañu leen loolu nag mooy li nga xam ne voilà moom daal dinañu koy dund léegi nag loolu yëpp nag bu ci boole woon wàcc delluwaat ca championship ba dina doon lu méttee métti moo tax daal démb bi ñu monté wala boog bi ñu desee voilà coow li bari woon na feetu nañ voilà bégee nañu photo boobu ngeen di gis Cheikhou Kouyaté ak kii di Moussa Niakhaté ànd ceeg Jesse Lingard entre international anglais lii ni ki démb la woon ci feetu googu foofu la ngi doon amal foofu la ci stade bu Nottingham Forest. danañ dellusaat gars yi ak yeneen info ci kanam continuer leen di suivre Sen Sport 221 the best news channel.